nga xam ni eh, West Africa defal na ko éleveurs yi nekk na lu nga xam ni kenn mënu kayma ndax fi mu ne léegi su xoolee fii mën nga dem mën na eh, ñaar fukki fan fanweeri kilomètre ñeent fukki kilomètre amul lenn loo xam di bàyyi ma mun ak sigg pour for ko West Africa Farm defal na fi ne mu nekk 40 hectares boo nga xam ne dafa béyal sàmm yi pour ñu ngi koy jox seen jiw jafe-jafe bu métti la am nag yaa ngi fàpp ndax bëgg euh, ndax xiif waxum xar yi waxum béy yi waaw lan moo leen di boole lu dul ñàkk xii ñàkk lu ñu sàmm seen jur lu ñu lekk rek loolu rek mooy indi problème bi léegi suñu ko amee su fekkee loolu am na su loolu amee dena si dindi lu bari bari bari waaw def see dindi lu bari ma ni at yi yëpp daanaka mangaan dematul ndax yëpp ci tool bi lañ yaakaar dañ yaakaar ndimbal bi nga xam ne am na fii ñu bari daan nañu dem mais léegi dematuñu dañuy toog di xaar li nga xam lii at bu ne ñu defal leen